luñ tuddé ay ay livre genre fascicule jox ko xalé yi loolu buñ ko amé amé tamit dañu ñëw ñu former enseignants yi loolu bu ko amé même chef d'établissement seen bi passé ñu ñu ngi leen doon former yooyu la laa lañ jël pour am résultat yi mais nak doyul parce que promotion science ñëpp ñoo ci wara japp jàpp loolu moo ñu ngi ñaan nit ñi xalé yi élèves yi enseignants yi ñun ñëpp ñu duggal ci loxo résultat yi nak buñ ko buñ ko amé xamal ni euh, ressource bu ne ressource nag du xaalis kessé xaliss mu ngi ci biir tablement yi euh, mu ngi ci biir donc effort yi ñu def yëpp lañu jël loolu la yaakaar ne loolu moo tax ñoom ñoom résultat yi bu ñu fàttaliku ni daaw am na bac résultat boo xam ne mësuñu ko am juróom fukk ak ñaar yu teg ci ci ci euh, téeméer bu nekk euh, mësuñu ko am te gëm na ni tànk yi ñu taxaw bu buñ ci gën góor góorgóorlu incha allah dina am yeneen yeneen résultat waaw xam nga li taxoon moo xam bac bi sax xam nga dafa am ay examen yoo xam ne moo gën a fës mais dafa am lu ñuy tuddee taux de promotion bi taux de promotion bi fi mu toll nii ñun ñoo ngi ci quatre-vingt pour cent xam nga boo jëlee téeméer lu mat juróom-ñett fukk ñu ñu jàll loolu dafa am solo boo jëlee téeméer bu nekk juróom-ñett rek bàyyi ci école lool sax loolu tam dafa am solo boo jëlee a euh, euh, ñuy redoubler ñi ñuy dellu. ñu ngi ci entre juróom ak ak fukk loolu tamit ay résultat la mais comme nit ñi examen la ñu gën a gis moo taxoon rek ma fësalan ko te li ma wax ci ci ci ci bac bi loolu laay wax aussi ci ak ci BFEM bu ñu ko fàtte ndax man man maa yore euh, euh, moyens yi mooy ñi nekk ci école yu dugg doom yi ak secondaire yooyu yëpp daal lañu jël et gëm nañ ni bu ci nit ñëpp jàppee ku nekk nga def sa loxo incha allah dinañ am ay résultats yu baax.